illallah illallah illallah illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya Rabb la ilaha illallah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

سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا خليل الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم مام lamb faal Cheikh lamb faal la lii Cheikh Ibra Fall lii la ma xarala Fall xotib la Fall Cheikh Ibra Fall lii la ma xarala Fall xotib la Fall leeri leeri Fall yaay borom Cheikh Ibra. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله Ahmadu Bamba borom gëneel sëñ Bamba سيولوا برم غنيل حديو رسول الله جيجو غنيل سيرين بامبا دكو غنيل سيونا فال مويون بفنيوال تشي كوكريري خام فمو جنفال تشي كوكريري خام فمو جنفال تشي كوكريري خام فمو جنفال Seexul Bamba borom gëneel sëñ Bamba Seexul Bamba borom gëneel Xaadimu Rasuulillaahi jeju gëneel Sëriñ Bamba dëkku ngëneel la Cheikh Ibra Faal moo yoon wi fa ñëwal ciy ku ko réere ma fu mu jëm wàll ciy ku ko ma fu mu jëm wàll ciy ku ko réere xaw ma fu mu jëm wàll jërëjëf Sëriñ jërëjëf sëriñ Bamba amul morom sëñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba amul morom sëñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba amul morom sëñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba amul morom sëñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba amul morom sëñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba amul morom sëñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba mooy ak ki ñaan lambu faal maam lambu faal abori jaal Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima ey eh, Cheikh Ibrahima lambu faal Cheikh Ibrahima Cheikh Ibra Fall yàlla sunu la baaxe def la ngay kun mu sawal يا وني سراد المستقيم فال جلل جلال الله yàlla mooy karim lii du neen faal yàlla la yàlla la yàlla la yàlla la yàlla la yàlla la yàlla la yàlla la faal moo teg bamba fi yàlla teg bamba Cheikh Ibra Cheikh Ibra Cheikh Ibra moo tekk Bamba fi Yàlla tekk Bamba Cheikh Ibra moo tekk Bamba fi Yàlla tekk Bamba yaram Cheikh Ibra moo tañu gis Bamba Cheikh Ibra yaa tañu lu Bamba moo tañu gëm Bamba tek Bamba fi Yàlla tek Bamba Cheikh Ibrahima tek Bamba fi Yàlla tek Bamba yaram maam Lambu Baal Cheikh Ibrahima maam Lambu Baal Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal mool sunu xol def ci liman yàlla la baaxe def la ngay xunu zawal yow le sirat al musayib faal hilal jilaani laayi yàlla mooy karim li du ne faal yàlla la yàlla la yàlla la yàlla lay wal moo teg bamba fi yàlla teg bamba moo jana doylo moo jara yaram rambu faal Cheikh Ibrahima rambu faal